di ko sant bu baax ci taxawaayam ci mbir mu réy mii ba mu tàmbalee ba léegi mi ngi ko ànd ak nun nu ngi leen di seereel sunu cant ak moom ci liggéey bi kon jërëjëf président taxawaay bi gis nañ ko ci wàll yépp ñu ngi koy yàlla muy faye yàlla na ko fay ci barkeb Sëriñ Tuuba gannaaw loolu ñi ngi sant bokk yi ñi nga xam ne dañ dañuy boole di tudd di tudd sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax ñëpp ñoom ñëpp ñëpp bokk nañ ko ànd ci biir ak ci biti suñ lépp nag ñu jiital ci liggéey bi kon noo ngi leen di sant bu baax la di sant nag mboolem taalib yi kenn desut ki yaakaar ne moo ci gën a fegg ak kañ foog ne moo ci gën a kawe ci mbooleem bokki taalib yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax gis nañ yéene ji nga xam ne am ngeen ko ak Pastef bu wér bi nga xam ne am ngeen ko ak itte ju rëy ji nga xam ne am ngeen ànd gi ngeen ko ànd ak nun tàmbali liggéey bi ba agsi fii tey loolu amel nañ leen ci cant gu rëy di ko seereel borom liggéey bi rek jëmmi fii ñu toll nii tey tolluwaay la boo xam ne dafa aajowoo ñu gën cee yeesal sunu jaayanteeg sëriñ bi di ca fedd li sunuy laxasaay séen a gën a taxawu liggéey bii ku ne xam na liggéey bi ni mu meloon liggéey bu rëy la caaxaan eggalewu ko fii mu egg rawatina nag ci li nga xam ne moom lañ jëm ndax li ko eggale fii ab tàmbali rekk la itte ja koy saytu mu bañ a dellu gannaaw loo jooju itte mooy li ci gën a am solo kon nanu ko itte woon rekk tàmmee tàmbalee ni àndee ko ni kon yaa yoon waa ngoog nan ci gën a def yitte bu baax a baax a baax ndax li ci war lépp ndax dara bañ cee sooxe dara bañ cee taxaw ni ko borom bëggee woon rek jële ngeen jëf nu ngi gën a santaat président ci taxawaayam ci niñ ko waxee woon rek biñ tàmbalee liggéey bi ba ni mu egsee fii noo moom noo ko ànd nu mu gën a diisee ak nu mu gën a sellee ak nu mu gën a rafete noonu rek lañ ko ànd moom nun la ko defee ak nun ñu ko nu ngi koy dollee sant di ko gërëm bu baax di sant nag mboolem bokki taalib yi yëpp alhamdulilah rabbil alamin kon léegi nag nee ñu jox kàddu gi sëriñ Bass mu eggale mu eggaleel ko waaw jërëjëf kon dañuy jox kàddu gi Cheikh Mamadou Bassir waaye dinaa leeral <clears throat> ne soññe bii sëriñ bi wax sëñ Habibu mu sëñ Fallou tey jii la tàmbaliwaat yee salaat ak jaayante Touba ci kanam téeméeri million la indaale waa Touba ci kanam yee salaat ko seen taxawaay ngir wane ne lañ defoon fàtte nañ ko ñoo ngi tàmbali tàmbali bu yees ñun ñëpp ko dégg nañ junj bi kon jox kàddu gi sëñ Mouhamadou Bachir bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alhamdulilah alladi hadaana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu ci ndigalul sëriñ bi ci ndigal li ma wax ma ne bu waxee kàddu yi ko ko kon hunna ummul kitaab kon li sëriñ bi wax tënk na lépp dama koy jotle tuuti rek ay kàddu nuyu ak cant ak ngërëm ak kàddu yu tuuti soññee jëme ci bokki taalibe yi mi ngi tàmbalee nuyoo bi nag ci président de la république njiite réew yi Macky sàll sëriñ bi koy nuyu bu baax ak mboolem délégation bi mu àndal bépp di ko sant ni mu ko waxee ci làmmiñam danaa ci dellusiwaat di nuyu mboolem ambassadeur yi nga xam ne teew nañ fi léegi te lépp mu mat ñeent fukk ak juróom ci ay réew yoo xam ne teew nañ fi ngir ànd ak sëriñ bi bis bi di sant bu baax mboolem këri diine yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo bokk liggéey bi te lépp lu muy def mu ànd koo ñoom te ñu cëpp seen ndaw teew na fi ñëpp sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm di jéggalu nag ci yéex a yëgle gi ndax sëriñ bi dafa waxoon ne diggante si ubbite ubbite gi nekk wootewu ko ngir nit ñi ñëw daa bëgg rekk ñu yëg ko ndax xataay bu moo tax ku ko yëgut tam nga xam ne noonu la deme waaye ñëpp sëriñ bi boole na leen ci mi ngi sant bu baax nag ñi nga xam ne ñoo moom ñoo bokk liggéey bii di ñëw waruk sëriñ Tuubaa gépp kenn desut ku ci amul ngant rek teewal nga sa ko ku am ngantit yabal nga ko teewal kon nag sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ngir xam ne liggéey ba nga ko yëkkatee ba nëgg ni yéen ak moom yéen a ko ànd kenn ku ne def nga ca la nga man def nga ca la nga mën ba liggéey bi taxaw nii di sant it taalibe sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ña ci jiitu ndax taalibe yi kenn géndu ci di sant ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon ak sëriñ Tuubaa laxasaayu li topp ci ginnaaw sëriñ bi ba yoon wi agsi fii mu agsi tey ñooñu itam kenn ku ci ne pastéef ak yitte ak doogu ga sa maam ju tedd ji amoon amaan nga ko ci liggéey bi wane ko ci lépp loo xam ne sëriñ bi yëkkati na ko nga ànd ko moom kon nag sëriñ bi nee na ñoo ñëpp mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan ci barke sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo leen taxoon di jëf kenn ku ci ne loo ci jëfandoo rek la ko suñ Tuubaa fay ginnaaw bu loolu jàllee nag sëriñ bi wax na ne ginnaaw bu jottalee cant yooyu ak ngërëm bi ndax wax ji du gudd ndax Cheikh Ahmadou Bari Mbacké Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo doon saytu lii ci wàlluk daara ji ak njàngale bi doon ko taxawu ànd ko doomam sëriñ maam Thierno moom sëriñ Moussa siru ak mboolem ñi ko àndoon ñëpp ba ci Abdou Lahad Ka mi nga xam ne moo yoroon liggéey bi ak mboolem ñi ci newoon te doon barteelu ay bâtiment te ñu léemoon ko lépp te buñ ci tuddee waa Touba ca kanam tudd ci wax yi tarxee waaye ka ci jiitu nag mooy Serigne Amdi Khadim mi nga xam ne moo fi jëkk liggéey ak Serigne Cheikh Moussa bi ak yéen kenn Serigne bi sant na ñëpp gërëm na waaye xam na ne lépp lu ngeen di jëf rek sëriñ Touba ngeen koy seeral Serigne Touba ngeen koy seere nag lu ko waay lebal rek daan na ko fay ndax moo waxoon ne. Cheikh bu Ahad Mbacké moo waxoon ne Serigne Touba ñeewut bor daa amul pay kon nag Serigne Touba mi ngeen doon jëflanteel yàlla na leen fay lu koy sa njort ginnaaw bu loolu jàllee nag nee na mi ngi soññ nag bokki taalibe yi ci ñu xam ne liggéey bi rëy na lool ñëpp ci sonn ndax lii dafa bokkoon ci dénkaay ne Serigne Touba yi ñu santaani woon waxoon naa ko ci bi ñuy woote bis bi waxaate dëkk bi di Touba dëkkub daara la waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wa tafahumi kon loola bokk na naaj yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha andi na ko tey muy liggéey bu rëy nag boo xam ne ku fi mas a nekk Sëñ Tuubaa def nga ko yitte def ci jom def ci taxawaay def ca lañ ca def ba mu agsi fii tey ci ay loxoom kon ñu koy ñaanal nag ci barkeb Sëñ yàlla suñu borom dëgëral ko kattanal ko ba sumb yi nga xam ne am na ko lépp sotti ci loxoom ba mu sombaat yeneen somb ginaaw boo loolu jàllee nag sëriñ bi wax na ne ne ñëpp waat te góorgóorluwaat te xam ne liggéey bi ci kanam moo ëpp fuuf li ci seen ginaaw ndax li koy tabax ba mu agsi fii li ko yor di ko saytu ba mu àgg ca fa mu ko bëgg ba bisu penc loolu du liggéey bu tuuti kon lu ci waay jëfoon rek na gën a góorgóorluwaat te xam ne liggéey bi day door a tàmbali moo tax mi ngi sant bu baax waa Touba ci kanam ci yitte xalaat jure ji nga xam def nañ ko léegi ba joxe téeméer million ngir gàttandoo ko sëñ ci loolu nga xam ne def na ko di jeexale cant gi nag ci président ndax sëriñ bi wax na ma ne naa la jottali ak cant ci moom ak ngërëm ngir xam ne liggéey bii ni mu la ko waxee ci lam ñoom yéena ko ànd ba mu ko tàmbalee ba nëgëni ndax ba nga yëg déggee mu kàddoo kàddoom wax ne day bëgg a tabaxal Serigne daara ju mag yàlla def mu yónni ma ci yow nga wax ma ne ma dama bëgg nga waxal ma Serigne bi ne ko université bi xam naa ne rëy na lool waaye lu mu toll lu bari bari bu doon ñeent fukki milliards it damaa bëggoon moo bàyyee ma ko nguur gi defar ko buñ ko mënta def ci mel ni at ñu def ko ci ñaari at ba ma ko waxee ma ñëw ci sëriñ bi wax ko ko. sëriñ bi jotti la ca cant ak ngërëm xamal la ne day liggéey boo xam ne liggéeyu sëriñ Tuubaa la taalibe sëriñ Tuubaa yëpp war ca barkeeloo kon nga may ma rek lépp lu ci ay tabax nga bàyyi ma ànd ko taalibe sëriñ Tuubaa yi nga xam ne jaayante nañ ci dinañ ko def bu ko defee la ci res nag loo ca mën a def nga def ko fa saasa nga sasoone kon lépp lu jëm ci tali yi ak a assainissement yi ak éclairage public bi fas fas nga ko yéene def loole itam tàmbali nañ ko ñu ci biir liggéey bi waaye yemoo ca laata sëriñ bi di tàmbali liggéey ba nga ko wootee rek nga yëkkati un milliard jox ko ko addee ne ko sama digg yow la bëgguma kenn di ci am seere ndax Sëriñ Tuubaa laa koy defal yemoo ca it centre formation bi nga xam ne defaat nga ko ci biir ak yeneen yéen yi nga xam ne waxaan nga ngir ko fas ko yéene ànd ak lenn ci jàngaleket yi nga xam ne tàmbul leen te yëpp ba ci ba la joxee kayit wa fa saa sa nga joxe diggal ba ñëpp ñooñu jël nañ leen kon loolu lépp itam mi ngi la ci sant di la ci gërëm di la ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa ànd bi nga xam ne wóor na ko ne nee na Sëriñ la boole moom ci lépp loo xam ne nekk na ca nga ànd ci ak moom te xam na sa yéene ci moom moom itam kon lim lay mën a mooy ñaanal la Sëriñ mi nga xam ne mooy borom liggéey bi lépp loo xam ne sa yéene ak sa bëgg-bëgg yàlla dimbali la ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaw ñëpp dañu ànd ak dal jataay bi sëriñ bi day ñaan ok di ko jeexale rek ci kàddu yi nga xam ne sëriñ bi yundiwaat na ma ko léegi wax ne naa ko jot li ñëpp mooy cant gu kawe ak ngërëm loo xam ne mu ngi koy jëme ci sëriñ Ahmadou Badawi ak mboolem kuréel gi nga xam ne ñoom la àndaloon di saytu liggéey bi sëriñ bi nee na sant na leen ci biir ak ci biti ndax liggéey bi kat ba nga ko yëkkatee ñu doy ko ci lool bañ ko bañ ko yëkkatee ko ci lool ngir mu xam seen yitte ak seen taxawaay ci liggéey bi mu fekk leen ci nee na benn xalaat lu wasa teg ko ci seen loxo ba mu ko tegee ci seen loxo nag wóor na ko ne def nañ ci ba def ci luñ mënut ndax kenn ku ci ne bàyyi nga sa yitte. bàyyi say soxna lépp ngir bëgg sëriñ bi am ndam kon nag sëriñ bi nee na mi ngi leen bàyyi ak sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañ doon jëfal ba liggéey bi toll fii di door a war a tàmbali yàlla na sëriñ Tuubaa defal leen ci loolu bu këpp ba liggéey bi àgg fan na ngeen ko bëggee tànd ko moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa na ñëpp tàllal seen loxo sëñ bi ñaan na ñëpp tàllal seen loxo sëñ baa ngi bu kenn xat-xat loo ci wetu sëñ bi amin Mbàkke amin Mbàkke amiin Mbàkke na ñëpp tàllal seen loxo na ñëpp tàllal seen loxo sëñ mi ñaan Mbàkke sant nga dongo yi waaye ñaax nga leen sëñ Abibu soññ nga dongo yi jërëjëf